suñ ko def ñu côté bii ba pare lumière lumière est-ce que oto baa ngi nii daal nañ defal na ah forom yi moom meer te suba la woon affaire yi moom te suba la woon moom. moom dem na rek. Ah, kan nga nii ay ñu ci biir ñu jël. oto bu ñëw. Eh, eh, sant waay leer gi leer gi gaa ngi leer leer boo xam ne dara yéem sax yéem ñu Mama, yeah. Serigne Touba Ba Fall